permettront cette modernisation et cette révolution démocratique. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Ali Mané, suivi de Kourandjaye. la parole. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le ministre de la Justice Garde des Sceaux, Monsieur le ministre chargé des institutions. Euh, tey li ma bëgg a wax rek dama bëgg rafetlu ci règlement intérieur bi nga xam ne waxtaan lal Sénégal à chaque fois su waxtaan amee rek ñu am ndam donc loolu na continuer te di ñaanal ñi fi nekk ñun ragaluñu opposition yàlla ngeen réussir ngeen réussir mission bi ngeen am ba sénégalais yaakaar bi ñu am ñu gis ko ci yéen suñu ñu 2029 def li gën li ngeen def lool moy démocratie té li fi dé ci nit yalla bu mu dé ci alternance li ñu ñaan lepp lu ñuy waxtaanee Sénégal ñu waxtaan ko consensus te fii mooy sooklu dialogue assemblée nationale nak dégg na président de la république wax dégg na premier ministre wax né jury d'honneur assemblée dara mënu ko remplacer ci réew bu am république parce que fi lañu déclarer guerre ci réew. yàlla tere fii la ñuy daanee gouvernement fii nag moom rek am centre national ci institution yi am ci réew mi yëpp donc loolu yaakaaroon na politique rek la beneen bi am nañu yaakaar bu baax ci ministre de la justice bii toog parce que pur produit sénégalais la ba pare su ma fàttalikoo ci Gabriel Darboussier ba léegi gouvernement du jaar ñu ngi doo ko am magistrat peut-être mu juum de parquet ñu war ko jox justice sénégalais am nañ ci yaakaar bu wax kenn pas nga politique kenn pas nga farfenn donc sénégalais nous am droit am nañu espoir ci ait sa éducation ak qualité ñi monsieur le président li ma bëggoon wax d'accord na ci suma collègue bi limu wax légui mu jëm ci affaire Nestlé man dé à 100 ma la koy jappalé ci commission d'enquête mais dafa am luma ma jaaxal dañu jël produit pur pour def des dizaines d'années à la Nestlé ñu def ko suñ ministre du commerce ministre de l'industrie man titre na ma trop donc su nekkee nga dem cabinet ay cadre ne sele nekk foofu donc waxu ne sele boobu intéressé na ma trop donc loolu maa ngi ko ci soutenir maa ngi ko ci jàppale incha allah monsieur le ministre yi fi nekk maa ngi leen di yóbbante le privé national tiit nañu jaaxle nañu ku amuloon ATD ATD ngénte la ci yow te Sénégal waruñu nekk 18 millions de sénégalais 60 000 contribuables rek di fay impôt nañu yokk assiette fiscale wàññi impôt société yi dund créer emploi su un ko deful société dinañ tëj dem monsieur le ministre de la justice maa ngi lay jox yóbbante waa Nioro Nioro am tribunal mais amuñ loko dañ leen ko abal ñu ngi lay ñaan ci budget bi di ñew nga fexé ba ñoro DRIP am sen tribunal départemental benen bi fi may di wax né Sénégal li rek fi meuna am ñu waxtaan ju jubo ku yaakar ne saga wax te monsieur le ministre ñu la koy ak clémence su ñi saga président Ousmane Sonko le le président Diomaye dañ leen di tejj bu ñu ci ñi quatre ans di menacer nit ñi mais ñoo ñi war nañ leen jëli duggal leen donc état de droit lolu lañ lay ñaan monsieur le ministre de la justice clémence mën am sénégalais yi dal xamné pouvoir carte moo joxé nit moo joxé du doole du saga du xasante loolu laa amoon di len wax di len ñaanal yalla na len yalla may réussite inshallah merci beaucoup. merci euh, une correction euh, Koura vous attendez après Cheikh Abdou vous aurez la parole Cheikh Abdou vous avez la parole. Cheikh Abdou vous avez la parole.

heure boo ma gisee à tout moment maa ngi sant sëñ Tuubaa du ma bañ nag ku ma saaga ci weeru safar du bañ ku ma xas ci weeru safar parce que sëriñ Tuubaa mi ñuy màggalal wax nañ ko lu nekk jëf ko lu nekk waaye tey ji am na ndam maa ngi wax nag ni ah sama ko la député yi nga xamante ni ginnaaw président Lamine Thiam maa ngi la koy wax yaay suñu président groupe parlementaire am na sama ko la député yoo xamante ni ñoo bokk groupe parlementaire bi dégg ngeen seeni kàddu yoolu c'est une démocratie

kon jàpp naa ni man maa soxlaatul monsieur le président monsieur le ministre fii dafa am ay seko seko seko yu jigéen seko yooyu nag dañoo bëgg ñu jóge fii si assemblée bi parce que dafa jot monsieur le ministre monsieur le président assemblée nationale li ma doon wax léegi dafa bëgg mu leer askan wi xam la 11 novembre 2022 le président Lamine Diallo dafa bind benn lettre yónnee la ko pour wax la ne règlement assemblée nationale bi baaxul nga tontu ko la 11

monsieur le président le premier le premier juin bi passé déposé naa li nga xam mooy loi amul examen tontu woo ma bindoo président de la république lettre parce que lolo la con règlement intérieur Assemblée nationale te waxoo te defoo monsieur le président Assemblée nationale le 24 le 24 juin bind na déposé poser proposition loi jëm ci criminaliser ngóor jigéen ba léegi ni tontu wuloo ma si. est ce que da a bañ a wote loi ngóor jigéen est que ay ngóor jigéen kon nekkuñu fi ba tax ngeen mën koo wote loolu après yéen la concerné parce que aw ma sa réponse monsieur président boo jëlee loi bi li ma ci wax mooy loi bii nga xam moom la ñu indil fii du loi bu baax parce que loi bi bi boo jëlee li nga xamante ni mooy article premier article premier si règlement intérieur assemblée nationale bii ñu yore ñun dafa wax ni article premier bi dafa wax ni li nga xamante ni maanaam mooy le député assemblée nationale soit élu de cinq ans mais bii nga xamante ni moom la ñu indil cinq ans boo da koo tëb loolu tamit y a un problème léegi bu jàllee léegi député ñaata mandat ñaata at la leen di fal loolu war na ko wax monsieur le te bokk ci loi bi kon bu fekkente ni tey Guy Marius Sagna sama collègue député bi am na lu ko naqari mais ñun ñoo gën a am lu naqari tey président assemblée nationale bu ma sañoon tey jii may wax ak yow ñu tas assemblée bi parce que assemblée méritewul tey continuer liggéeyam parce que jàpp naa ni tey ji assemblée mooy bi gën a niir ci assemblée nationale yi monsieur le président assemblée mooy bi gën a bon ci assemblée nationale yi nationale bi mooy bi gën a yées ci assemblée nationale dañuy saaga dañuy xaste dañuy xuloo amuñu ay argument ñenn ñi nag laay wax ñenn ñi certain ñenn ñi ñenn ñi nga xam ni buñ dee wax nga xam ni ñoom ñi yaruñu leen amuñu xam-xam amuñu maanaam man-man amuñu kattan amuñu gis-gis waaye ñun amul kenn koo tee fi ñu bëgg àgg ñu àgg fa ñun ay saxaar lan ci kaw raay la ñuy jàpp suñ tuwaa mooy suñu gaar xasta bi du tee ñu wax tuumaal bi du tee ñu wax wax ju ñaaw du tee ñu wax fa ñu jëm ëllëg xam nañ ko muy gaar bi suñ tubaa temps foofu la ñuy taxaw kon loi bii ngeen indi tey assemblée nationale am na lu ko waroon a jiitu bu ma gisee nii waxtaan am na mais waxtaan am na bi ma déposé sama proposition de loi wax naa président Lamine Thiam wax naa président ay Daffé wax naa président Abdou Mbow loi bi déposé naa ko mais pourquoi càmbaruñ ko mooy nee na awuma li nga xamante ne mooy argument matériel politique d' accord amu matériel politique mais amu ñu ma soutenir kooku nag comme am naa soutenir yàlla subhanahu wa ak sëñ Touba loolu moo si am solo mais lan waxoon ñun ban dajee dañ bu ngeen demee ba pare ngay ñëw rendre ñu compte ban demee ba ñëw kenn rendre ñu compte xamul si dara bu ma propose loi keneen def propose loi ñuy woote woo ki defoon propose loi bàyyi ma man mi def propose loi damaa jafan loolu injuste la moo tax wax ko soo remercié jërëjëf merci la parole est